jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa ne tey nag ku ci nekk xam na ni euh, fils de Balla barki démb gis ngeen point de presse bi mu def jàkkaarloog presse bi wax ci diggante ma Gora Sock fils de Balla wax na lu baree baree bari ci loo xamante ne sax ñun ñuy seetaan làmb xamuñu ko woon ci Gora Sock wax na ay faayam wax fan la ko mën a jaar ba yenu ci kaw dóor ci suuf Gora Sock nag moo fas yéenee tontu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu waxtaan bi Gora Sock maa leen nuyu bu baax di la siyaar. sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi. daa relaxé bi. di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur. di sant axlu boy tërësool bépp. di sant njaboot sëñ Tuubaa yëpp. ak Tiwaawan yëpp di sant sama mbokk mboor boor yi baax. Mm-hmm. di sant nag. képp ku nekk sama xarit rek ci koñ bi ak sama nit ak sama rakk wala sama mag. Hmm. wala mère wala paa maa lay sant di la gërëm ne aw ma seen fay. Hmm. seen borom mi am seen fay yàlla na yàlla fay. Hmm. sonn nañ ci man trop wax dëgg sa yàlla. li ma bëgg a xam mooy sa diggante ak Fils de Balla ban problème ngeen am yéen ñaar. problème mu bëree lañ am détail boob laa xam si xamu si moom lañ am lu ñaaw wala lu rafet xam naa daal yàgg na ma room nuyu ma yàgg naa ko room nuyu ko. yàgg na ma room mbalag ma xam naa ko moom. Hmm. waaw problème mu bëre est-ce que mënu woon yem ci bëri mais signature contrat bi da ngeen ne signature tag rek ana mbaxana Fils de Balla bi nga jël. non man Fils de Balla mbaxanam yooyu sax man du sama détail. man mbaxana bi lan moo ak loo koy doyee mbaxana jàmm. non man dama dégg sa nit ñi ay mbaxana mbaxana mbaxana man booy jël mbaxana bi sax ci suur làmb ji ñi ko yoroon ñi ma àndal ak man ba léegi waxuma leen jox leen mbaxana ba léegi sax waxuma leen jox leen mbaxana man gis na yooyu nit ñi nekk. Hmm. am ma jot boobu moom benn flési bu ma am Mm. mooy nekk naa mbër bëre moom ma ñor ak entraînement ak teel teel a lekk nelaw am mm. bañ détail moom mën détail fi fees balaa la ma koy ñaanal mm. wéer bala vingt incha allah nee naa ko combat bi ñu bari dañuy wax ni combat wu tay ma dee la ci Fils de bala mu ne moom yàgg na ko dégg ci làmb saa yu bëree ñu ne ko tay nga dee tay nga dee bu doon tax mu dee dee na ci digganteem ak général Malika te général Malika moo la dàq moo la ëpp doole te da koo duma attaqué ko jàpp ko daan ko te lu gën a yomb loolu la lay def. xam nga tey mu dee boo mos a gis ci àdduna. Mm-hmm. daa fekk tooñoo gaynde ci digg àll nga dóor ko wala dara mu lay dàq ji. man mm. nga daw dóor bukki mu daw man nga dóor lëkk mu daw man nga dëkk golo mu daw. Mm. mais tey mu dee boo gis ci àdduna. Mm. da fekk tooñoo gaynde combat bi kon tay ma dee bi gars yi wax dëgg la ci ci ci yow. ñaari laax koo dégg man ma dee dama cee génn tooñul gaynde laax wala mu fekk jësib ci biir ndox mu dëgg ko wala mu mu jàkkaaroog moom. ci biir ndox la gaynde la moo tax ma ne bu tey mu dee gaynde gu mag la. tey mu dee boo gisee atum laax tooñoo gaynde wala nga tooñ jësib ci biir ndox kay laa la wax. Hmm. waaw. nee na moom xam na say faay ni ngay bañ mooy reculer arrière ngay bañ te arbitre bu ne prix mbëru yoor nga ci tànk yi nga jëm nee na boo jëlee tànkam yàlla na nga ko jàpp ndax bis boo jàppee tànk bi di nga daj loo xamante ne mburu du ko daj ci taal. du moom rek moo ko wax yàgg na mbëri mi moom mooy song dama daan ko. moom ci boobu laa su ma ko bëggee daan su ma neexee ci ay sept secondes ma koy song su ma ko bëggul daan ci ma koy téye ngemb bi. téye ngemb bi trop ci ko ba mu ne nemm ma koy a plaqué sànni ko fayee. xeex du am. lan moo tax xeex xeex du am doo xeex ba Fils de Balla du xeex. maa ngi yéene wax. Ah, kon dañuy dañuy téye sama loxo ma koy rek daw kenn daw song. moom damay daw song si. leer laa yéen ñaan ñëpp. ah léegi kon naa ko bàyyi mu song si ma ndegam xam ne ne ma ma. nee na une minute la la may une minute boo ñëwul ngir yàlla taxawal. moom foo fekk foo taxaw dina fekk. ilmi dafa bëri ci bëri bàll moo wax dafa bëri ci bëri damaa daan bëri ko gën a diis gën ko dàq koo bëri gën ko dëgër liman jam ceeri mobile deux waaw ma pool mm-hmm. benn mbër bu tudd taseeram mm-hmm. Batista li ñoo dama bëri ak ñoom te ñooñu bi bëri yuñu bëri ngay gis noonu bëri yuñu ñoom mm-hmm. mu du sax quatre secondes ma daan leen mais est-ce que ñooñu ñëpp nga bëreel. Hmm. daan général Malika suulul ñooñu. daan ndax nee na saa yoo dajee général Malika ci lutte simple bi danaa la jëlal say bagage nga ñibbi. général sax te moom bi mu jàppee général da ko. suñu borom dafa dogal mosul bëree man Franc la bëree ñetti yoon day mel mosul bëree man général moom. mosul leen naa de mosuñ nit booy wax day wax ci li nga xam. Hmm. man mosuma bëree général Malika. xam nga nag nit comme li may wax rek man nga fekk gaynde muy nelaw mm-hmm. nga jël jaasi wala nga dóor fetal nga dóor ko ko mu mu mu mu dee mm-hmm. mais gaynde goo xam dara jotu ko mm-hmm. mu moom mu daw wut si la fu mu dala si nga daan combat bi nee na revanche Modou Lo la ak euh, Balla Gaye da ngay confirmer loolu wala dama koy denc man bëri lu mu Modou Lo bëri lu mu Balla Gaye moom nee na revanche la Modou Lo sama mag la nee na deux day nekk trois ba waaw da nga may déglu mag la sama mag la boo xam te ne ku muy bëree ci àdduna a lu hmm. dama ne la man bëri waxuma ma ak Modou Lo gis nga mbëri dañoo bëgg ay détails. Hmm. fekk ñoo ko jëlal seen bopp ñu ciy dugal ay kaay ma woo Baslaay kaay ma woo Seexuna Jaw kaay ma woo Soy Laay ñoom laay bëreel bu dee ñooñu lañ yaakaar tamit dañ leen di woo ah c'est normal. nit nag bala ngaa yaakaar kenn nga jëkk a yaakaar sa bopp ñaan lu ji ñaanal sa bopp moo gën a wóor. Hmm. waaw. tey kër sa kër naan yàlla baax na maa war am ay kër liggéey am kër moo ko gën a wóor fuuf hmm. booy liggéey xëy di liggéey ci nga gën am yaqiin hmm. man nag loolu moom dal damay xëy di liggéey di am hmm. yaqiin uh-huh. tey mën nañ ne combat bi sa première combat arène la parce que combat yi nga bëre yëpp yaa ngi nekkoon écrit dóor dóoraat suma juumul nga jógee dóor dóoraat dem jàmbaar wrestling academy nga xamante ne Papa Sow moo ko jiitee yéen ñëpp ngeen nekk fa combat bi booy bëre ji ak Fils de du doon pression jóge ci écurie dem ci beneen écurie. <laughs> déggoo ma ndax. Hmm. man ba léegi ba léegi parcelle ma parcelle xam nga su ma mën Pikine wala Guédiawaye hmm. may laaj yow Pikine nga bëree Guédiawaye mais man parcelle laa nekk ba léegi. waaw ah, mais écurie yi du ñu benn. te parcelle Mm-hmm. kon man ma ne ci gox bu gën a wër Cambérène moo jur parcelle mm-hmm. te man parcelle laa nekk ba ma nekkee bëre licence parcelle laa mosuma bëre plus licence Pikine mosuma bëre bu Guédiawaye mosuma faneen mm-hmm. kon jërul loolu yëpp benn la ay détail d' benn la mais bu doon benn la mais écrit yi duñu benn parce que staff bi nekk dóor dóoraat ak staff bi nekk jàmbaar duñu benn mm. am na loo xamante ne lié na leen c'est-à-dire façon entraînement yeeg façon coach yeeg yu mel noonu du benn góor a sax li ma lay wax ci làmb la ñuy waxtaan ma ne yow xam nga baax li ma lay wax dama la. Dóor dóoraat ki ko yoroon moo ma yor ba léegi lato. yooyu ay la man lato moo ma jàngal dañuy bëree ma su ma ko jàngal mottali na ma war nu ñuy jëlee mbër nu ñuy dafay mbër nii. Hmm. nga xam ne ak te moo ma yor ba léegi. Hmm. sama coach sukka kooku kenn amul fayam. waxuma sa entraînement bi entraînement mais coach mi lay coach dafa am solo ci athlète. Hmm. coach Balla Diouf Yaram Guèye ñooñu kenn ku nekk jàmbaar. boo dee coach staff président ñi maa ngi sant di leen gërëm. Hmm. aw ma seen fay man. Hmm. ma taxaw boo xam te ne bii mbër laa woon de mais ci ñoom laa gën nekk athlète. Hmm. Mhm. jàmbaar seen première sortie yaakaar naa suma juumul seen liet naa Papa Sow dafa ñàkk ndax diggante mag Siteu la ñëwoon blessé ci combat am blessure boo xamante ne vraiment ñu bari séntu ñu ko woon ci moom Modou Lo ñu ne diggante mag Balla la Ama Baldé moom it mu am blessure Gora Sock est-ce que combat bi bu desee ay d'ici une semaine trois jours du ngeen def entraînement boo xamante ne mën na leen yàqal seen combat. non ba am ci blessé. Modou Lo bi muy gaañu combat d'ici une semaine. trois semaines la des yow laa wax yow li la des damay ñëw. Mm. trois semaines la des. Mm. Paso dafa ñëw ba ci biir compétition bi. Mm. gaañu ko kenn mënu si dara. ndogal suñu borom la. Modou Lo professionnel la. bëri na ay vingt deux combats mosul gaañu. man même su ma dul professionnel lay àndal. Hmm. xam naa nu may paree combat xam naa nu may paree compétition. Hmm. xam naa nu may waaje. Hmm. te si am naa ay ñoo xamante ne bii même su compétition bi. ñi nga xam ne ñoo ñoo gérer équipe bi am naa fi ay sama ko ñoo xamante ne bii li ñu may wax lépp làmb la. su ma tegee leen damay juum. dóor mu daanu mën na am ci combat bi ndax gis naa ko mu daas loxo yi di gan chaque jour suba ngoon ba bëccëg. dóor mu daanu est-ce dina am ndax góor a yow moom duru woo ma ni koo xamante ne di nga taxaw samp jaaga ñeme jàkkaarloo Fils de Balla da nga ko gis la moom dafa mos a yóbbu mbër aar na. jam ceeri kër bi mu koy fàq mu ko dóor a toog man laa dama ne yooyu nekkuma sax ma pool mooy bëri mu indi laa ko dóor muy ma ba wax ko bàyyi ko fa laalu ma ko sax sept secondes moom doo ko dóor. moom xam naa ne doo ko dóor. dama ne Fils de Balla yéene mu ko lu bon mais bëgg naa koo daan mais nag man yéenu ma ko lu bon. <laughs> lu bon kay dóor bu daanu weesoo ci. te ah. bu daanu lu baax la bu sport la rek. <laughs> dóor loo tawaay bu daanu la rek. Ah. waaw. dóor bu moo xam ne xam xam naa fi dabaara jabar la am na ku yoo xam bu ko encaissé xam nga. Ah. bëggum moo ay ruy ak yooyu. wante xam nga fi dabaara jabaram day ñëw fi ci ndey ante fi suñu koñ. xam rek bëggum mooy rus yi xam nga man dama bëri jabaru mbër xanaa xamoo ne ma sax man yenn saa yi damay nuyu nit sax wala may kaf ak nit ba mu yaakaar dama dama koo ragal fekk cër ma jox doomu aadama ak respect bi ma la. lu waral loolu. yàlla moom bind na man dama jox nit respect mooy nit sax su ma ko nuyu de koo ragal. waaw fii sa baa man na foofu nit dama koy nuyu sax de yaa dama koo ragal. fekk man gaynde ñeme naa koo rat. xam naa <laughs> lu ma ñëmul amul. ndox mu sedd buy rey tey. mais saa nga nuyu nit ñi sax tooñ ko nii wala mbër ci làmb ji mm. mu mu yaakaar yow danga ko raga fekk man yàlla moo bind noonu su ma lay nuyu sax yow dama laa ragal fekk ñeme ñeme day feeñ ci kanam ñu bëri xamuñ la. mais est-ce du fils de balle moo la ëpp safara ci combat bi parce que moom ni muy dégagé. Mhm. ak ni muy waxee yow góoro sa wax ji da nekk en l'aise quoi toog wéeru yaa ma gën a xam di wax na normal. am na zone yoo xam mënuñoo fubal mais dañoo mën a tënk. am si yoonam football rek lañ mën mënuñoo mais tël rek lañ mën. <laughs> fi sa baax la waaw ah, tël la mën tël la mën waaw ah. bu dul football. loolooy bu dul bëree wax rek la mën. non mën na bëree football dama ne la tël moom tal nii. tël loolu kay booy booy bu dul bëree wax rek. mën a tël mais mënul mënul mënul. bu dul bu dul football mënul football. waaw ah, mooy mënul bëree wax dama lan laa <laughs> dama mën a football dama mën a paas dama mën dugal. Hmm. te attaquant laa teg si. Hmm. te attaquant gis ñu ko jox penalty mu koy mu koy mu koy xamante ne da ngeen di satisfaire amateur yëpp ndax yéen ñaar ñëpp ay xale ngeen. satisfaire mu romb mu duy stade bi xanaa xanaa xeer bu ñu la takkal la. wala keroog ba ma fa demee gis naa Balla Gaye de yor yat sax di ko dóor. kooku le grand champion loolu moo ko war gis nit soo dikkee ci gox di dundee làmb ba làmb may leen nga war a am da nga war a jàppale ndaw yi fa nekk même soo entraînement nga ñëw di séerance wala nga booy ndaw yi rek ñoo fay nañ même mbër yi fay a dem ci école naan nga mbër boo gis mu bañ a sumee ko cinq heures pile hmm. la ba pare yoratul lu mu hmm. mbër boo gis si àdduna cinq heures pile takk ngeem ñëpp di ko gis gis yaram bi amul ay nit ñi dañoo bari. nit ñi dañoo bari mbër boo gis muy contact timis maa la ko fii mbër boo gis muy contact di nëbbatu naan damay bañ sama adversaire xam li may bëree. Hmm. mbër boo gis maan ay damay lijjanti combat bi. Hmm. kooku si kii gis naa ko gis naa ko gis naa ko mu takk sëram sol ay kawasam. Hmm. gis na loolu moom gis naa ko mais gisuma leneen ci moom. contact na est-ce que. ah xam mënuma la seedal seen équipe mais gis naa a bëri gis naa gis naa gis naa nag gis naa Balla Gaye di ko def na day wàññi hmm. di ko def loolu jëmbin jaag te loolu day wàññi biir xam bi daa rëy non wàññi biir laa moom ko biir bi bi daa bi rëy na a maa <laughs> naa daal mooy jëmbin jaag biir boobu est-ce que du doole biiru xale doole la de du jàpp ko kii de jàpp ñoom aadama jàpp caméraman biir moom biir moom bind la am am am nañu forcé la. biir. Hmm. bind la. bind la ndax moom forcé wu est-ce que forcé wu ko. ndox ma ah, laa gis de. Hmm. gis naa ko daal muy gis naa ko daal muy jëmbin jaag bala Gaye di ko jëmbin jaag loo xam naa nag loolu day wàññi xam naa day wàññi poids bi tuuti. Hmm. ndax dama koy conseil rek conseil bu gàtt boo xam mbër la comme man. yaa koy conseil. waaw mun ngay xool déglu conseil. yàlla na ko yàlla may wér. ak tal ak fekk. amiin mu bu doy waar ñu bëri ci fula maag moom. loolu laa koy conseillé. que le meilleur gagne loolu ngay wax. non ban keneen kay. xanaa xamoo gagneur yow. que le meilleur gagne. xamoo gagneur laa wax dafa nit ñoom ay gagneur lañ. Hmm. waaw comme man ay vainqueur lañ gagneur ñoo xamante ne bii même buñ perte même buñ dee perte duñ perte ci ay perte yi ay ñëw jàpp la nga daanu dañu perte ci lu leer dégg naa su ma day rëpp man dama am rapidité même su ma rëppee su ma joxaat at bi ñëmul suuf foofu. Hmm. ak gaawaay mooy jóge ak poids mooy cent vingt kilos est mos mos na gis làmb ji mu commencé rek mbër bu nekk cent vingt normal daf ko quatre ans cinq ans di bëre ay sept secondes koy gis yow. yombul ah yombul dama koy def di njool mu bëgg tànk nga de loolu moom xam naa ko ah? Ah. Ah. waar bi ne prime nga daw. moom bii man dama koy bàyyi mu jàpp sama tànk moom. nga bëri. ah ma yóbbu ko fu mu ne teq ko sànni ko fa bàyyi ko fa. Hmm. yéen su ko neex mu jàpp ba dëgër bu neexee moom li mu gën a mën a suba moom bu may ko ko. am na solo maa lay jaajëfal bu baax di kontaan bu baax a baax a baax yóbbante bi laa rek mooy xam moom man dama yor ay mbeyaar fii diggante marché église dix mm-hmm. neuf ñoo mm-hmm. bay carte kadu xaalis lañ te mbeyaar dañoo bëgg a teg seen xaalis mm-hmm. parier code deux bi waaw code 2 lañ bëgg. luy code 2. code 2 laajte nekk ci naar bi. naar bi man xaw ma dama bëgg nga leeral. man su may bëre Qatar man su non su may bëre Qatar laa dëkk. xaalis bi gars yi liggéey Qatar fii lay ñëw ci man gars yi ci man lañ koy teg. su may bëre Qatar laa dëkk ci naar bi laa nekk. ñe ñëpp ci mën nañu teg lu ngeen ñemee teg ñeme nañoo teg. dama ne la maanaam sama grand frère Balla Gaye ñi mul teg ci moom. Hmm. non waaw dama ne bu bëggee sax suñ grand frère Aziz Ndiaye moom mooy diwlin Sador. Hmm. mu indi li mu yor gars yi teg. fi gars yi teg. gars yi transporteur camion la ñu ngi fii toog. ñu ngi lépp. 3 millions 5 10 15. oto sax caabi oto yaa ngi ñoom la dañu seen oto yi gars yi bu bëggee lépp a ngi fa. kenn du waaw lépp bëggee. teg maa fi. laay laay laay góor sax lan lañ la dee lan lañ la wax. ba nga ñemee tegloo gars yi seen kër ak seen oto seen biens yi ñu am yëpp ba pare bëgg a sóoru Aziz Ndiaye daj dëpp gi. damaa dee sama bopp ne am naa doole mën naa bëri am naa condition li na a jafe ci mbër ponkal mën a daw huit cent mètres doo ko yëg <laughs> loolu yombul de xam nga daw nii ci montagne yow kese kay entraînement di arrière chef ni dafa yomb. mais hmm. nga daw huit cent mètres par ñu tegal la kër noonu nooy woo yombul de te man mën naa loolu. amul benn poids lourd bu nekk ci làmb ji ba mu daj bu ñu boon ñu jëm Yoff Cambérène du ma la bàyyi ginnaaw. Hmm. waaw ku neex na nga laaj mbir yi may daje di ngeen di nga laaj benn course may dawloo te du gis si man athlète mais xam nga nit ñi ñooy gis rek image boo xam ne bii xam mais boo gisee ni mooy bëre nga xam ne kii day entraîné. na solo maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa. waaw ah, li ma nga wax ko yëpp wax nga ko. waaw xam nga xas nga sax fils de Balla ne biir bi daa rëy. xam nga sama waay nga. Ah. te yàgg nañ. Hmm. mais mm-hmm. yàlla moo ñu boole. benn problème nga mooy bàndi nga <laughs> mais maa ngi ñaanal li ma waxoon ne jóguma ci sama koñ. Mm-hmm. ak xale yi fi nekk. Mm-hmm. ñu gën a góorgóorlu. jàpp seen waajur yi te gën a liggéey. dama koy foog ko wax suñu waa koñ fi ma dëkk. da booy booy booy booy cons fi nga dëkk. bu ah, dem ba ci àdduna yaa ngi koy wax àdduna bépp ndaw ñi buñ toog rek ne président président liggéey bu dee président liggéey te nga tëdd si kër loolu dafa metti na ndaw ñëpp jóg liggéey pour dimbali seen i waajur suñu waajur ñoo liggéey ba am ay kër. yor ñu ci. léegi da ngay gis si àdduna bi ku yor benn jabar mënoo ko yor suñu baay yoroon ay ñeenti jabar yor nañ ci kër yi kenn du ñibbi. ñëpp dañ ci kër mais genre Jami Kay ak genre ñoom Lamine ñoo ah? waaw waaw exemple rek laay joxe. yor benn yor jabar rek. benn jabar rek yam si mm-hmm. ay aso yi laay xam ne ay tàppalen seexu naa jaw Tapha Lo bu balaa ngoon a joor laal ku benn message bas laay bu nekkee fi ndey kumba noonu buñ la wooyee rek nga daw njagab gàtt boo ko waxee mu ne non màggat saa rek doy na ah, li waas ndaa moom tamit jot fatu na ci kër gi <laughs> ah gars yi ay tàppal bu ne yër bundu kër gi boo ko laan sa parfumeur sa potan non non wëlee ngi ci biir mais xam nga xam nga gars yi benn rek la ñuy ñaar wala ñett waaw bàyyil ba am yow. boo ko waxee non man su ma bëree bëri naa am incha allah. waaw hmm. ah. kon ñu ngi lay xaar. su ma bëree bëri incha allah rabbi. Hmm. yàlla ma yàlla may tal ak fekke. Hmm. nga takk jabar bu soobee yàlla. ki a takk Eh. mais fële fan fële fële fan fële fi gars yi nekk non yi ñu ngi Pikine Guédiawaye Parcelles Grand Yoff. waaw ah, fi gars yi nekk lan la nekk. la gars yi ñu nekk. gars yi fan lañ nekk tey ñoom ñëpp xam nañ fi gars yi nekk. nante ngay waxal yi fan lañ nekk. fi gars yi nekk foofu teg suñu baaraam. nu mu sant hmm. ah nu sant. nu mu sant. mën a sant sant yi ñëpp yor. <laughs> bokk nga ci réew mi nag maa lay jaajëfal. sant bi ñëpp yor. maa lay jaajëfal. waaw ah, kontaan naa trop nag hmm. wax dëgg si yàlla. di hmm. ñaanal site internet yëpp. di ñaanal promoteur bi. Mhm. yàlla suñu borom dafal xéewal ndax ndaw la kom ñun mhm. te dafa am lu ñu seq moom loo xam ne a remplir contrat mhm. mooy joxuñu xaalisam rek ngir dañ koy bëral ngir xaalis ñun jënd ay billet feesal stade bi woo suñu supporter dafa am ñaari gox yi ma bokk ñetteel bi mooy parcelle maa bokk ci Cambérène foofu ñëpp dañ ma bëgg ma dëkk Mboor ñëpp bëgg ma parcelle bëgg ma kon man dama am lu garaaw loo xam ne suñu borom mën na ma dimbali su ma góorgóorlu sama bopp waaw góorgóorlu sa bopp nag. Hmm. bu ñu weesu xëy entraînement ji. Hmm. ñëw lekk bu suur tëdd na jaamu yàlla wax ak ñi war a waxal. Hmm. waaw te man ci loolu laa toll. kon rendez-vous. la vingt. arène nationale. yéen ñaar kuy njëkk a dugg si. non man moom loolu xamuma ci dara loolu da ngay laaj Pape Diagne si wala Ousseynou Laye. kooku ñoo a détaillé mais daal maa ngi sant koo xamante ne bii aw ma fayam. muy Ada Jokkel. kooku dafa sonn sama combat bi. man amu benn yoon fayam. di sant papa mi nga xam ne sama nijaay la moom sama yaay ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. di sant Ousseynou Laye ak Bas Laye. Hmm. di sant yaay Ousseynou Laye mère Khady. Hmm. ku mu bëgg la ku sonn ci man. di sant suñu papa père Ali Anne mi xam ne ci koñ bi xale yëpp doo ko gisee dañu yàlla ay moromam lañ. di ku baax. yàlla ko suñu borom dafal jàmm. may ko gudd fan ak gi yaram. di sant koñ bi bépp maire bu fi nekk bépp nekk benn ndaw bu fi nekk ñu gën ma jàppale gën ma ñaanal gis naa seen taxawaay mais ñu gën ko yokk hmm. koñ bi yàgg naa mais mosuma fi am problème hmm. mosuma am problème mag mosuma am problème xale hmm. ku loolu cant la waaw yàlla na suñu borom defal jàmm ñun ñëpp ma ñuy taw féex ok jili jaajëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom Gora Sock dégg ngeen li nga xamante ne wax na ko euh, di ko jaajëfal bu baax di leen wax mbokk yi ngeen waaj bu baax a baax le vingt incha allah fële ci arène nationale diggante Gora Sock Fils de Balla jaa ngeen jëf.